ay jullit lañu ñun gëmuñu ku yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan yàlla. waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom ñoo tolloo ñoo a bëral ñëpp ma daal. Abou Niasse à droite waa ndeysaan écrit face Ndakaaru face à Diamaguène Lansar lewaatoo nañu Abou pied droite Pape gauche Pape Ndoye pied gauche Pape wàcc na a ngi avancé Pape Ndoye a ngi avancé Pape Ndoye bi mu fi mujjee et Abou dóor na Abou dóor na Pape Ndoye fayu Pape Ndoye ci defet la jógee Abou dóoraat na hey laa ilaha illallah mais Abou ni nga xeexe ndax baax na Abou boobu xeex baaxul eh protestant bi wadd na protestant bi Pape Ndoye dañ ko dóor protestant bi wadd ñu nga jëlee abu lu muy def nii abu day sensibiliser xeex abu bëggee door na indi gauche bëre wala xeex door mu daanu wala lan aboog Pape Ndoye Jamaïcain fi jaar abu door na Papa ngay fayu ñu ngay xeex Pape Ndoye gëdd na ko Pape Pape Ndoye jël na ko Pape Ndoye jël ko door ci suuf laa ilaha illa Pape Ndoye jël na ko Pape ci suuf laa ilaha illallah yëkkati ko ba ci kaw door ko ci suuf laa ilaha illallah ay bi jël bi jël rëy ay bi jël xool stade bi xoolal sécurité bi xool stade bi bi jël rëy dañoo xeex Pape Ndoye wàcc eh wallahi la sim Papa la mu bëre tey rey na de kaay yow suma doom nga yow suma rakk nga yow suma xarit yow danga ma bëgg danga ma bëgg loolu am lay ñaanal yàlla defal la jàmm mais man dama rus lu parce que lamb ju toll nii ñu tuddee ko Lat Diop directeur LONASE ñëwul yónneewul lii dafa ñaaw est-ce que est-ce que promoteur bi yegg na ma ci na ko ay nitam ñoo ko ne lamb jiñ la tuddee lamb ju ndaw la lii lamb ju ndaw la. lii lamb ju ndaw la. stade bi fees ba ñu tëj. Abou Ndiassé ñu ñu ko guichet fermé. waaw guichet la presse ñëw loolu lamb ju ndaw la man nag. politique ma politique wulu ma waaye dama ne ku toroxal lamb man la toroxal man laa jóg bàyyi naa ko. Babacar waaw Fadam. te nii la ko waxee waaw. nii la ma waxoon keroog. dama laa dama laa ne la Cheikh Super Jamono Cheikh Super Jamono diggante ak Mamor xeex bi ci kaw la am ak song sans légère bu def daloo ba Cheikh Super Jamono jàpp ngembam da koy jàpp da koy daal avec manière nee naa leen tarkindaa bi li mu indi ci stade bi na ko yemale ci buntu stade bi te xam ne xale bi muy bëreel dañ koy yàpp te da koy war ci làmb ja te tey jii ah, lañ waxoon lépp ñëwaat na di wax ne làmb làmb day toll foo xam ne da ngay joxe cër tarkindaa bi entraîné na bay bëgg dee xeex na def na lépp mais joxewul cër tey joxewul cër. parce que ni mu xeexee jaaxal na ma. non xeex ba du yoon xeex ba du yoon xeex ba du yoon parce que booy xeexee indi pied gauche. déggoo li ma booy bi koo yi ko doon dóor yëpp pour ñaari tànk daje ba mu mën ko song la moo tax booy bi ñu ko songee ñoom ñaar mu dajale ko mu xar jëppit ko du xar jëppit bu di ba ci kaw daal di ko mën ta ñàkk koo koy fadam tu Sénégal tey lii moo amoon ci stade bi li grand Lamine Samba wax nag ñëpp dégg nañ ko grand Lat Diop Boulanas moom lañ tudde woon bés bi ñëwul yeblewul li ñuy def mooy euh, mooy féliciter le promoteur jamaïcain ak waa production yëpp comme li may wax rek jamaïcain moom macha allah nañ ko ñaanal yàlla parce que tamit lu mu def mu neex loolu yàllaa ko dogal Pape Ndoye félicitation abou di courage jam looy wax waa Sénégal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw xewal sutura la Diop maa ngi ñaanal jàmm yàlla defal ko xewal defal ko sutura ñëwul waa yàlla ñëw yàlla ñëw. waaw lamb ji réussir na ñun ay ndaw waaw fii lu fi nit doon rek dañ laa jàppale ba nga doon. yaa ngi dégg. def nañ li ñu waroon def. waaw liggéey nañ ci li ñu waroon a liggéey. lamb ji neex na réussir na. macha allah léegi le 25 moo des. incha allahu rabi buñ fa jógee mois de mars góor a sof. góor a sof ay jam coow li ngeen di tey ca sax bi. waaw Babacar. waaw ñun tëggul lu neex. dañoo yëpp amateur. lu tax. dañoo yàgg ci làmb rampe sonn si daj si lu nekk lu ñu liggéeyal làmb loolu la ñuy fay ndax doon leen dugg si rajo naan diw ak diw combat la gars yi di noté kon bu ñëwee bay nekk promoteur suñu tëggu làmb yi nekk dañoo yëpp amateur di wax ne amateur nañ ñu xaar man li may joxe sponsor nañ ma sponsorisé di nga ko am ma suqali làmb Sénégal di nga am sponsor kontaan naa ci yow Babacar maa ngi kontaan si yow yow tamit di ñaanal jàmm xew yow sama rakk nga sama lépp nuyu Mor bu parcelle Xaadim Anta Seck di encouragé Assane Ndiaye sama grand sama père <laughs> loo koy encouragé lu ma koy encouragé lu xew moo yokkoon roi de Ibamar waaw bu ma jël ko ci loxo nangu ko waaw ko war a ah. ko waaw li ci kanamam yàlla leeral ndeysaan waaye roi Ibamar yow la bis ni ki tey Ibamar am na roi bu bees looloo neex fi amoon Cheikh Super Jamono moo daan Maam Mor ah. kaay Fallou Pape Ndoye moo daan Abou Niassé loo wax Fallou ma ko na trop ma kontaan naa ba ka alxuraan man foog dee naa Pape Ndoye moom ndox na ko daan na ko Balla Gaye Balla Gaye de Balla Gaye moom ndox na ma Balla Gaye de namoon naa ko. namoon na ko. waaw. Balla Gaye 2. waaw. ko trop. tey de sa xol sedd na xanaa. waaw Pape Ndoye daan. waaw ah waaw. kontaan ci nga ne kin ceec ceec. Pape Ndoye eh, kon loolu la Fallou wax kon félicitation Pape Ndoye di courage Abou Niassé lamb nii la chaque dimanche am ku muñ am ku yóbbu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 amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ni ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa en live pay per view sur seen affiche point com.